président Macky Sall ci sëriñ bi ak mboolem délégation bi mu ko dalal jàmm ci dëkk bi ci bi nga xam ne bisu sëriñ Touba ni ma ko daa waxe waxtu wu mooy bis bi mu laxa saay woon di mu liggéey li boroomam ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jànkoonteeg ay metti metti yu ëpp ba yàlla suñ borom at mu jot natt yu mu ko teg bu waxtu ba dellusiwaatee mu tegaat ko yu ko ëpp noonu la doon doxe ba ci at yu mujj ci njaareem 1919 wala 1920 sëriñ bi xëy woote doon séntu nattu yi yàlla suñ borom xamal ko ne ko yi jeex na ak pay ci des li fi àddunaa ngi dox saa su bi si accès xéewal gu mal mayoon dama koy dolliwaat te buñ demee ba ëllëg itam foofu ay bis amu fa waaye fu koo xam ne sama bis yi daana la itteel nga di ci taxaw buñ ci àggee lépp loo xam ne ay xéewalu yoo daa am bis waa de dooli koot kon bis bii bis la boo xam ne mooy suñu lépp mooy bisu Serigne Touba di bisub yoon wi kon sëriñ bi nee na président mi ngi lay nuyu bu baax xam naa wax ji du gudd ndax li mu wax nee na li ma waxoon ci làmmiñam wax na wax na ma ko démb waxaat na ma ko léegi nee na mi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci taxawaay bi nee na ni la waxee bis bii nga xam ne bis la boo xam ne ëmbalu la ci dara lu may sant la ak ngërëm la ak ñaanal la ak yee salaat lay dénk gi mu la dénkoon Sëriñ Tuubaa loolu nag doon na sëkk ndax sëriñ bi kat ku ko xam xam ne jëmm la joo xam ne nii ko kilifa gi waxee njiitu réew mi léegi ne mën naa ne néew na weer dugg ba jeex te sëriñ bi yónni wu ci ay itte waaye lenn lu ci ma sa doon soxlas ba fa amatu wala njabootam kon moom adduna sépp la teewal lislaam jëpp la nekkal waaye njabootu Sëriñ Tuubaa jëpp la nekkal kon nag nee na mi ngi lay sant di la gërëm ci mboolem taxawaay ak coono yooyu nga xam ne yaa ngi koy def di ko def ngir jëmbi Sëriñ Tuubaa waaye di ko def ngeen xam cofeet gi mu ëmbal àgg na ci boo ma ne waxuma la yërmaan waaye dama ko ñewantal daanaka bu dee wax soxla yi nit ñi sax day diis moom ndax nee na bu soñoon day ànd ak ci yow noo xam ne du du du teg dara lu su bàyyi la nga ne ci sab liggéey waaye nag neen xam na ne kuy liggéey Serigne Touba Serigne Touba am na pay kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax ci coono yi nga xam ne waxtu ne ni ko waxee jiitu na jataayam bii ngay am coono yaakaar akuk cofeel akuk jàpp bi mu fi nekkee Serigne Touba ba nag itam. saa suy soxla si nit ñi accès ak lu jafe-jafe-jafe dañ ca teg sa bakkan fexe ba na ko sëriñ bëggee mu amee ko ni loolu nag nee na xam na ne ànd nga ak moom liggéey bi kon mi ngi lay ñaanal la sëriñ Tuubaa daali woon ne daa waxoon ne anna man waasala nii laa li xarajin dunyawin fa innahu yakunu min al muqarrabin wa anna man waasalen li dunya faqat fa inna allaha yukrimuhu ma daama xayyan képp koo xam ne dangaa ñëw ci man te yàlla rek tax laa jukk nee na suñ borom daan la boole ci ñi ko gën a jege képp koo xam ne dangaa ñëw ci man ci adduna yi yàlla dana teel a sa diiru dund kon nag nee na na nga delloo xel te rafet njort te xam ne li nga jëfal sëñ ci dëkk bi liggéey sëñ ba di ko rëccu kenn mësu ko def kon na sam xel daal ci li ndax nee li nga jëf ci dëkk bi lépp gis na ko ndax trente bii nga xam ne doonoon na mébatum dëkk bi nga tax taxaw ci muy liggéey bu rëy boo xam ne ubbi nañ ko ci màggal gi ak yeneen yi nga xam ne tudd nga ko léegi mooy forage ñeenti forage yi nga xam ne defaat nañ ko ci biir màggal gi lu wóotewut ak bokkut ak ñetti forage yi ñu defoon ak assainissement bii nga xam ne ñu ngi ko door a tàmbali rawatina nag mbirum nab bii nga xam ne tiitaloon na ñëpp te jaaxal ñëpp keroog bala sëriñ bi jot ci sama kanam te wax na la yëpp ay soxla waaye bii mooy di ci jiitu ndax jaaxal na ñëpp ndax boo dem na bay li wër jumaa ji mu agsi ci waaye fa sansa lu matu juróom benn weer koo xam état ni muy doxe xam ne yitte ak taxawaay bu mat sëkk nga ci def ba loolu mën a am kon nag ñaan yooyu yëpp boo ko boolee lépp loo xam ne itee ma wala itee njaboot gi wala mboolem ci dëkki yoon yi dëkki Serigne Touba foo ci déggee taxaw ca ba def ci na kaw jotam ñaan loolu mu ngi lay sant di la ci gërëm di la bàyyi ak Serigne Touba mi nga xam ne ni mu la ko waxee léegi xam na li ngay jëf waxoon na noonu la ma ko waxoon ci làmmiñam xamalal ma président ne ko dëkk bi jëflantewu fa kenn ku du Sëriñ Tuubaa kon nag lépp lu mu daa jëfal Sëriñ Tuubaa ak yoon wi na ko jëme kanam yàlla def na nga waxal ko sa bopp nee na doo ci am dara lu may am ak ndam ak payug Sëriñ Tuubaa bu ëllëgee nee na mi ngi lay sant la ñaan ci li sa kanam yaa ko xam yaa xam sa bëgg yàlla na la ci yàlla dimbale defal la ci tawfeex nga amee ko na kaw suñu jotu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tubarkalla Mbakke leer na